muus muus Max gën laa muus moom mais Max mais Max Mbargane man li may yëm mooy yi gën a jafe nga dëkk Thialis nee na waa Leewtoo yëpp dañu jël seen xalaat seen lépp jox la Max nooy taxawale combat yi waaw xam nga ginnaaw ba ñu nuyoo assistance bi fi ne yëpp euh, sant yàlla julli ci yonent bi gërëm suñu ñaari waajur di ñaan jàmm ci réew mi xam nga problème mooy Leewtoo bi mu ñëwee mhm. waxoon na objectif am dëgg la xëccoowuñu dara mais bàyyiwuñu benn mbër bàyyiwuñu benn combat. kon combat bu neex askan wi rek Leewtoo dina ko démarché su jiboo dinañ ko taxawal. defe naa bi ñuy doog a dugg si loolu la ñu waxoon. Mm. tey dëggul fàtte ne 2017 2018 boobu ngay wax. waaw Leewtoo journée bu mu tëgg vingt écrits ñoo koy bëri de. doo gis ñaari écrits bokk ci benn journée. Mm-hmm. loolu moo lay wane ne ñoom dañu bëgg làmb ji au moins li ëpp ci mbër yi di bëri. Mm-hmm. moo tax nag gis nañ ne Garga ak euh, Sa Thiès fii la ñu waxtaanee ak ñoom ndax gis nañ ne amateurs yi bëgg nañ combat boobu wax jot nañ ñaari mbëri jot nañ seen i ménager jiwoo nañoo ak ñoom incha allah semaine bu ci yàlla àndee euh, dinañ ko finaliser incha allah dinañ ko finaliser waaw. mais mais loolu doy na waar. jërëjëf foofu rek ngeen ñëw wala wala seen yaram tàngagul. non non non non. région yaa ngi laaj seet wàll caris boobu léegi téléphone am fayu dañu bëgg ñëpp ñam wala li ëpp ci mbëri ñam donte mbëri ëpp journée yi. dëgg la jërëjëf jërëjëf Max loolu dëgg la. parce que kontaan nañ ci yow léegi nag xam nga Leewtoo yéen dafa am lu ma di wax mooy da ngeen làmb te ñëpp ni làmb deen ngeen jóge fee ñëw def loo xam ne réew mi ñëpp a yéen amateurs yi ngeen bégal amateurs yi ñoo soxla woon ay combat jànq làmb am na fu mu tolloon dafa suuxee woon li ma wax sànq en 2017 en 2018 ngeen ñëw dëgg ay combat yu extraordinaire lu réew mi yëpp di yooxu tey ñu defe jeex na roi des bi nga xam ne moo lëmbee adduna kenn xamatul foo jëm muy Covid 19. kenn mënu ko ko daan. waaye ci biir Covid bi ak jafe-jafe yi mu am. ngeen tëgg combat yu am solo yi. Leewtoo gàcce ngaalaama Pape Thiaris Faye yokk say collaborateur gàcce ngaalaama waaye nag sans plus tarder ba tey xam nga yenn saa yi je suis le griot des temps modernes yenn saa yi ma làkk tubaab tuuti damay ñëw jox Boy Niang kaddu Boy Niang nga wax ma combat bi yow Tapha nan la taxawee ak nan nga accordé ak waa Leewtoo production waaw asalaamaaleykum maa ngi nuyu ñi fi teew ñëpp ku ci nekk sa tur ak sa sant et puis di nuyu suma adversaire Moustapha Tine di ko ziar di ko jox wàcc waayam di nuyu Leewtoo production équipe bi yëpp en particulier mi nga xam ne mooy DG bi muy Thialis ak Diaw di leen ziar bu baax di nuyu suma benn ak sama équipe bi fi àndal di nuyu suma papa yu nekk fii yëpp di leen ziar bu baax a baax waaw Pape Thialis dafa ñëw waxtaan ak euh, staff bi comme ni ñu amee habitude koy def rek boo bëggee sama combat damay wax ak staff bi et puis waxtaan bi yàggul parce que gars am na fu ñu taxaw mu seet si leen rek mu yomb incha allah ñu war a bëri moom a bëri moom. Hmm. léegi ñu jël mbër mi nga xam ne kenn ñemewul bëri moom. Hmm. kun ko jox nga delloo avance ni ko Malick Thiandou waxee léegi. Hmm. kon Pikine jël ko lu tax nga jël combat bi. waaw lu tax ma jël ko mais combat bi. est booy que bëgg nañ combat mais Boy Niang moo gën a bëgg bëre bëgg combat maa bëgg bëre parce que dama xam ne Tapha champion la et puis ñun ay xale lañ ci làmb mënuñu def lu Tapha deful ci làmb. xale lañ nekk ay xale dañu am yoon et dañu war bàyyi ñu continuer ay xale lañ defaguñ ci dara ci làmb li ñu dese moo ëpp li ñu def donc ma gis ne Tapha champion la et puis commencé ci làmb may fàttaliku nekk booy combat bu ma jëloon rek. gars yi ñëw làmb ji dañ naan tey laay dee ci làmb man dama bëgg loolu quoi dafa bokk ci man waaw dama bëgg loolu waaw dama bëgg combat yoo xamante ni Tapha nit ñi bàyyi nañ ko fekk bàyyiwuñ ko jàpp naa ne bu ñu ko booleeg booy ñaar bu neex lay doon mhm. dinañ bëre su bëggee bëri dañ xeex su bëggee xeex incha allah. li ma leen mujj laaj mooy Leewtoo production ñoom loolu di wax xale bu néew. waaw dama leen ziar rek leen bëgg bu baax ci biir bi nii yaa ngi gis ñu annoncé beneen nouvelle mhm. wax ne am na beneen combat bu taxaw xam nga loolu defal làmb la làmb moom boo ñëwee boo yokkul rek da nga wàññi ñoom ñu ngi yokk quoi di leen di bëggee bu baax jàmm dañuy wax combat ñu teg yëpp suñu boom defal am si réussite bu parfait bu importance incha ñu ngi ziar ñëpp nag di bëggee ñëpp waaw wax Tapha di ko ziar di ko wax ni combat bu neex la maag moom parce que man dama jàpp ne ñor ñor tab moo gën gësam ñor ñor moo gën gësam waaw Tapha champion la man moom dafay neex te amateur dañ ko bëgg. combat amateur la combat jànk la. waaw bu jeexee rek jeex na incha allah. jërëjëf Thialis joxal ma Moustapha Tine mu nuyoog waa Sénégal wax ma combat bi mu taxawee nan la ko dundee Pape. waaw Doudou salaamaaleykum maa ngi lay nuyu. Euh, di nuyu journaliste yi teew yëpp di nuyu suma entraîneur. en même temps mu ñëw teewal fi sama menacé moo koy nuyu di nuyu Pape Thialis ak ñi mu àndal di liggéey ñëpp euh, di nuyu aussi Boy Niang suma frère comme ni mu ko waxee maa ngi koy delloo cër bi di ko wax ne ko jàmbaar la mais am na bés quoi na leer te client waaw di nuyu Sénégal yëpp di nuyu sumuy supporter di nuyu waa Bawol aussi di nuyu bawol bawol yëpp fu ñu ne ci àdduna di nuyu képp kuy bëggee tafaatin ak ñi ma doon ñaanal naan tafaatin yal na am komba di sant aussi papa ak El nga xam ne ñoo mooy xalal Pape calis xam na ci dara donc Pape Thialis nag dañ koy remercier côté bu nekk waaw mën naa ne bi mu ko annoncé léegi deful une semaine combat bi taxaw kon mën naa ne jàmbaar la quoi en même dégg naa dolli na garga ak Sa Thiès na ci dolli yeneen combat ñu ngi koy ñaanal lool parce que jëree la dañ ko war a jàppale waaw loolu weesoo nag di sant yàlla bu baax a baax di sant su may waajur bu wér a wér a wér a wér di ñaan yàlla feebar bi yàlla na ko fi yàlla jële nu mu gën a gaawe bu activité yi xam nga kenn ku ne dellu ci sa ay activité la parce que xam nga ñëpp jaaxle nañ quoi comme ni ñu koy waxee du noonu waaw mais dafa waaw grand contre petit bi coow li bare mhm. ku ni grand contre petit nga roccee ku jël sa morom yow nga jël gone Pikine gi lëmbee àdduna bi combat bi du risque ci yow wala. non man benn combat du risque ci man. Hmm. man mën naa ne ponk li ñuy wax ci làmb yëpp man maa leen daan xoolal bu baax li mu la wax. Hmm. loolu dafa leer cargo yi ni ci làmb ji yëpp man maa leen daan kon booy ñaa taxaw ci kanamu tafaatin wax dëgg yàlla du risque ci man vraiment champion la mbër la def na fi lu ne. Hmm. ma koy ñaanal weer bu bés ba. man li ma jàpp li ma jàpp laa jàpp de man xaw ma keneen lu mu jàpp sama yoon na wuji keneen lu mu jàpp ko mais man Tapha li ma jàpp bu bëree ma daan ko bu xeexee ma daan ko man loolu laa jàpp ko loolu nga leer na waaw. kàddu gu mujj suma frère la nag maa ngi koy sant di ko gërëm ci combat bi mu jël. parce que wax dëgg yàlla comme ni ñu ko waxee taxawaloon combat Tapha Tine jafe na côté bu nekk vraiment seeti nañu fi ku nekk. waaw ku dem bu ay contrat ñu ne la ñëwal jël xaalis xam nga combat bu yàqu ma toog di muñ xam nga toog di seere ñi mu war a xelal di mu xelal dalal dalal dina ñëw ba tey bés ñëw na. kon mun naa ne sant yàlla quoi. bi booy ñaan nangoo break man ma koy remercier ci côté boobu. voilà mu ngi noonu kon maa ngi jaajëfal Sénégal yëpp di ñaanal ñëpp jàmm di wax ne kontaan naa ci Pape Thialis aussi. moom ñi muy liggéeyal ñëpp. yal na leen yàlla gën a jàppale ko di sant aussi presse bi di jéeglu ci tardement bi xam jéglu ñëpp daal a ci jaajëf bu ci kanam ah. non bu ngeen toppee tonton tey signature lay bëgg a doon ah, waaw ah, non waaw jëru jëru jëruma micro bi pour tontu Tapha mhm. dama jël pour nuyu waa kër Cheikh Amadou Cheikh Sadou Abi waa kër Cheikh Mohamed Fadal mhm. di nuyu waa waa Pikine bi ma jógee di nuyu sumay soppe sumay am di jàmm sumay fan di leen bëggee bu baax képp ku sopp Boy Niang di ko bëggee di ko ziar maa lay bëggee di la nuyu bu baax a baax surtout fi ma bokk waa kër maam Cheikh na Cheikh Sadou Abi waa kër Cheikh na wuldu maam leen di ziar sama waa kër maam Cheikh Ibn Mansour maa leen nuyu di leen ziar bu baax jaajëf jërëjëf Boy Niang balaa xarit la bokk ci Leewtoo production jaw xam naa ne am ngay kàddu man de asalaamaaleykum mbooloo mi maa ngi leen di yéen ñëpp seen tur seen sant di gërëm di remercier euh, le président directeur général de l'autoproduction muy Pape Thialis Faye di remercier ñaari mbër yi di remercier la RTS bi nga xamante ni nag ñooy suñu partenaire pour toujours parce que daaw bi ñuy tëgg làmb en 2018 ñoom ñoo doon suñu ay partenaires ci làmb ji cette année aussi ñoom lañ fas yéene àndaatal pour tëgg saison saison bi bi bi ñëw alors donc on remercie de directeur général de la RTS ak tout son personnel parce que heure bu ñu leen soxlaa rek dañ leen gis di remercier nag toute la presse ici présent parce que vraiment amoon na ay xat en une semaine la ñu def lépp mais démb bi ñu leen wooyee kenn hésité wul ñoom ñu ko teew donc la presse on vous donc di remercier aussi le personnel de Leewtoo comme ni ko Pape Thiel si waxee léegi c'est un personnel dévoué à la tâche ñoo xamante ni dañu gëm lu ñuy def daaw ba ren tëgguñu làmb mais ñu ngi doon réfléchir ci ay stratégie comme ni ko Malick Thiam mu waxee di xool nan la ñuy mën a dugaatee ci làmb ji ba réussite bu ñu amoon ñu am réussite bu ko ëpp parce que soo jàllee fenn ñëpp ñu def lu baax sooy ñëwaat tu n'as plus droit à l'erreur da nga war a def lu raw li nga defoon donc loolu moo te taxoon tekk googu am ñuy réfléchir alors mbër yi aussi ñu ngeen leen remercier bu baax a baax a baax parce que jafe lu ñu dara mm-hmm. jafe lu ñu dara parce que mais nag ñoom si suñu équipe lañu bokk parce que ñun dañoo am équipe bu mbër mm-hmm. ñii ñëpp tëggaloon nañ leen mooy ñoo xamante ni bi ñu waxee ak ñoom xam nañu ñun ñooy ñan ñun xam nañ ñooy ñan il sont tom on est tombé d'accord sans aucun problème alors euh, affiche bi ngeen di wax léegi tam aussi waxtaan nañu comme ni ko président Pape su fay waxee waxtaan nañu ak mbër yi waxtaan nañu ak manager yi xam naa ni dinañu annoncer la presse la semaine prochaine kañ la ñuy def présentation wu ñaari mbër la donc loolu laa amoon lu ma leen di wax di leen remercier yéen ñëpp parce que bon asamaan si neexul ñu jéem a xool rek la prochaine fois nu ñuy jéem a def pour que ces quelques problèmes d'organisation qu'on a eu ñu ñu mën koo jéem a faj euh, ñu leen gërëm di leen sant. jërëjëf mi ngi noonu léegi nag balaa may def dara damay joxaat suma mag Malick Thiandou yaakaar naa ni moom bu waxee ba pare. yaakaar naa ni voilà ñu def. mu tëj mu tëj waaw Malick waaw jërëjëf. waaw kon. Boy Niang Leewtoo sa combat sa diggante ak Tapha Tine. Hmm. wax nga ni sa staff la ñu hmm. waaye yow combat bi yaa ko bëggal sa bopp. Hmm. ñu bëgg nga dellu si waat ci kàddu yooyu. ak lu tax ñëpp tegge fi Tapha Tine nga ni yow nañ la ko jox yow Tapha Tine. waaw père maa lay di la bëgge bu baax. nuyoo woon naa mais comme ku nekk yaa ngi rek ma nuyu ma nuyu Sénégal nuyu monde entier nuyu ñëpp ñuy seetaan. di nuyu waa kër Cheikh na Cheikh Sadou Abi waa kër Cheikh Mohamed Fadal fi ma bokk di ziar ñëpp di nuyu waa Pikine di nuyu ñëpp waa Touba waa Daaru Rahman di nuyu ñëpp sama mbokk sama am di jàmm yi su ma waa kër maam Cheikh Ndoumbe maa ngi bëggee ñëpp di ziar ñëpp waaw comme ni ñuy wax rek euh, combat bi Pape Thialis da ko démarché boo gisee taxawal ko yomb mooy waxtaan bi yàggul parce que ñun ay xale lañ ci làmb kat waaye xam naa ni moom xaw na xam suñu valeur ci làmb et puis lu ñu soxla jox nañu ko sant nañ yàlla bu baax comprendre nga ñu ñëw war a bëreeg Tapha Tine staff bi bëgg nañ Tapha Tine parce que champion la def na lépp ci làmb mais comme li ma la wax rek man maa bëgg a bëri ak Tapha Tine. lu ko waral. parce que mu commencé làmb dama daam di wax ni pour ma doon dara il faut ma daan champion yëpp ci sama gëm-gëmu làmb bu ndaw dama jàpp ne pour ma doon dara ci làmb wala bu ñu tuddee làmb tudd sama tur donc foo ma daan champion yëpp loolu laa jàpp yombul nag liggéey lañu ay xare lañu. waaye jàpp nañ champion yooyu Tapha ci la bokk war nañu bëri ak moom suñu borom moo yor ndam di ko maye ñu ngi koy ñaan mu may ñu ko ci barke Cheikh na sa sall léegi bi dégg nañ ko mu ne soo bëree mu dóor la nga waaw comme li nga ko wax rek lool waa loolu wax ko dafa teel waa loolu waxam la mais wax ko dafa teel làmb bi ñoo ko sekk maak moom comme li ma wax rek ñool tàbbi moom moo gën gësam ñool tàbbi moo gën gësam loolu dafa jeex tàkk comprendre nga Tapha champion ra defuma ci làmb lu mu deful wala lu mu def sax man defuma ko xale laa dama ñëw pour bëreeg moom pour wane ni boo ñaa champion bu ndaw la ci moom après ma dem xool leneen. Hmm. jërëjëf deuxième question bi Malick. Hmm. da nga ni teg sa ci nu fondé. Hmm. ñëppay naan. day naan moom. non kaasam mi ngi fi indaale nañ ko. bu ko naanu rek incha allah bu ñu jàppee dal ak charge ñu indi ko kaasam bu soobee yàlla comme noonu la demee daa am lu ma leeral nag comme presse bi ñu ngi fi ma bëgg leen wax ni rek euh, man xale laa dama ne ci làmb donc il faut que ñu bàyyi jël suma carrière fixé ko ci benn département wala ci benn nit dama nekk xale war a bëreeg ñoom ñëpp su ma paree ci Tapha dama war a bëreeg beneen champion suñ borom bu ñu may ndam ñu ngi koy ñaan suñu borom waa Pikine rek laa fi bàyyi kon donc nag il faut mu leer ci presse bi ñu bañ jàpp na man li may sonn ci làmb wala di ko ñafe ci làmb pour benn mbër la wala pour benn gox la géej waaye bëri naa fa ay champion yu bari amul lu ma fa defal def naa fa li ma fay def ba pare donc loolu moo gën a tax ma préféré pour bëri ak feneen dama war a bëri yeneen champion bu ñoree rek tab waaw noonu la deme maa ngi jaar ñëpp nag di bëggee ñëpp loolu il ma leeral ko fii pour ñu xam ne boo Niang ña fa wut carrière am ba mu commencé 2010 ba léegi pour benn mbër wala pour benn gox dama war a bëre gaa fi nekk yëpp laale ak ñëpp ñoo ñëpp ay champion lañ maa ngi bëggee ñëpp di jaar ñëpp jaajëf